asalaamaaleykum dal leen ak jàmm ëttu yéenekaay bu groupe Sud Communication du Sud Quotidien li ko soxal tey jile mooy wute bi nga xam ne ci la lekkool Sénégal nekk ba tey jilee ginnaaw ndaje bi nga xam ne moom la gouvernement beeg syndicat yi ëmb jàngalekat yi yu bokk yi fare ci G7 amaloon ci àjjuma ji ñu génn juróomi syndicat ci juróom-ñaari daal ñu jël décision ne dañuy dakkal seeni grève PUSEMS ak SAEMS joxaguñ ci ab tontu dañuy xaar ba ñi nga xam ne ñoo leen fa yebaloon jox leen ci dogal suñu naataango bi fare ci avenue baax di ñu xamal ne gouvernement bi nag yokku na bu baax a baax koppar bi nga xam ne moom la tegoon ci taabal bi ngir defi ay jéego jëmale ci peyooru jàngalekat yi Le Soleil di ñu xamal ne nag koppar bi nga xam ne moom la nguur gi teg ci taabal bi jóge na ci juróom benn fukki milliards ak juróom-ñeent jàll ci juróom-ñeenti milliards ak juróom-ñett yu teg ci kopparu CFA suñu naataango yi di ñu fàttali ne yile mesure gouvernement bi jël nag dinañu ko jëmmal lu ko dalee benn fan ci weeru mai ci atum 2022 le soleil di xam xamle it jéego yi nga xam ne moom la gouvernement def ci mbir bi daal waajuru ndongo yi ñu ngi koy rafet lu bu baax a baax keneen ku koy rafetlu it mooy haut conseil du dialogue social ñu waxtaaneeg waa Sud Quotidien leneen loo xam ne it soxal na askan wi fi mu toll nii muy li xew fële ci Ukraine ak docteur Fatou Sow Sarr jiite laboratoire genre bu IFAN nag bi doon ganub émission objection bu rajo Sud FM démb ci dibeer bi ñaar fukki fan ak ñett ci weeru février muy xamle ne yëngu-yëngal yi am foofu la nag dina am ab jeexital fii ci suñu réew li ko waral mooy ñun daal dañuy jéggaane li ñuy jëfandikoo moo tax docteur Fatou Sow Sarr di artu bu baax a baax ne fileeg nag fexewuñu ba bay dundee suñu réew duñu tàqalikook jafe-jafe yi ni mel ñu des si loolu lee ak le bi dellu si si ñi nga xam ne nag dañuy sukkandiku ci ñeneen ngir mun a dund moo tax it nee na bu Europe sëqatee rek wàll Afrique ñoom dañuy socc muy xamle ne Sénégal bokk na ci dëkk yi nga xam ne nag guerre bi am ci Ukraine moom la nar a gën a sonnal ndax Sénégal mooy ñaareelu léew ci l'Afrique boo xam ne daal mooy gën a njëfandikoo ceeb ñu waxtaane nag wàllu politique ak waa tribune bi jox kàddu Doudou Wade bu parti démocratique sénégalais muy xamle ni Pastef daal du parti bi nga xam ne moo jiite ku jege fi mu toll nii maanaam daal ki ko jiite di Ousmane Sonko jiitewul benn yoon ñi bokk ci ku jege Doudou Wade bi doon émission grand jury bu RFM ne loolu moom leer na ko fàttali it ni ci élection yi Pastef nag da caa demul loon boppam daa àndaloon nag coalition bi di Yewwi Askan Wi ñu des ak Doudou Wade muy waxtaane leen ak wàll indépendant jëm ci dajalewaat ñi nga xam ne ay libéraux lañu suñu réew Doudou Wade di xam le ne Macky mi ngi ciy def ay jéego yu am solo parti démocratique sénégalais ba ñu ko benn yoon Doudou Wade di xamal l'indépendant ni waa parti démocratique sénégalais lenn la ñu bëgg mooy ñu ubbiwaat procès bu Karim sa Wade bëgguñ benn yoon ñuy waxtaane wàllu amnistie maanaam daal di ko baal ñu des ba tey ci wàllu politique ak direct news bii waxtaane nag ndoxteelu mouvement bi di renfort ànd dooleel sunu réew bu Aliou sàll mu ngi pare bu baax a baax législative yu weeru sulet yi ñu jéem président Macky sàll daal mun na compter bu baax a baax ci bile mouvement ñu des si élection tabbu député yi ñi ak waa réew mi quotidien bi ci jox kàddu gi di Mamadou Diop Decroix muy waxtaane wàllu caution bi di koppar wi ñu war a joxe ak wàllu parrainage ab dëbb daaxe la ko méngalee nee na li tax a jóg caution bi ak parrainage bi du lenn lu dul wàññi parti yi nga xam ne dañoo nar a jongante ci yooyu la élection ñu waxtaan waxtaane nag ma ki Sall muy tànneef bi nga xam ne moom la war a def ginnaaw bi nga xam ne nag benn bokk yaakaar fi mu toll ni daal lim doon xaar ci moom gisu ko ko muy daal mu tëggaat ko ci jamono joo xam ne nag jàng gi moom li ko métti te mu xam xamle ko mooy saax-saaxi àll bi nekk ci Casamance mu dénk ko waa Sud Quotidien ak Le Soleil Monseigneur Benjamin Ndiaye lu loolu le ginnaaw gi mu doon jiite ubbi teeg juróom fukkee ak juróom ñeenteelu daje bu yaatu yaatu bu Caritas Sénégal ki jiite jàngu bi nag xamle ne daal lii nag dafa war a dakk suñu réew l'évidence dañuy waxtaanee màggal Kazu Rajab bi nga xam communauté murit bi dana fàttaliku ñaareelu xalifu général ku li murit muy sëriñ lu Mbàkke bàyyu mbenn wala bàyyi galas mu dellu si bu baax a baax si jaar-jaaru nitu diine boobule ñu des ci Touba ak sëriñ Koso Muntaxa Mbàkke mu dellu si ci tukki nemmeeku bi duwaan doon amal foofule ci Touba muy xam la ne xalif général kulli murid di sëriñ Muntaxa Mbàkke musul yëkkati kàddu boo xam ne mun nañ ko méngaleeg dàq duwaan foofule ci dëkk bu sell bi képp ku xam xalif général kulli murid war naa xam ne yile kàddu ba wawul ci moom ñu jeexale kook wàllu tàggat yaram ak waa SAD bii waxtaane mbirub Koyaate muy xam le ne nag tey jii ci ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru février lay màggal fukki atam ci équipe nationale leneen lu soxal it waa SAD mooy Ligue 1 sénégalaise bi ak génération foot bi nga xam ne dal na bu baax a baax ci géejuwaay football club AS Pikine moom nërmeel na waa Gorée jële it jaraaf ci ñeenteelu place bi mu newoon leneen lu waa sat waxtaane it moo jëm ci jongante bi amoon ci diggante équipe bu Sadio maane ak Edouard Mendy Sadio ak équipe bi ñu mujjee gañe boobule final bu kenn dootul fàtte ñu waxtaane it wàllu basketball rawatina éliminatoire mondial yi ñuy waajal ak gaynde yi nga xam ne dañoo dal bu baax a baax ci waa Kenya tax nag ñu jël poule D bi ñu bokk ñu jeexale ko wàllu lomb ak waa sunu lomb bi waxtaanee tëggaat bi ñu nar a tëggaat combat bu am solo bi ci diggante Modou ak amaa ñu jàpp ko ci weeru solet août wala décembre ñu jox ci kàddu ko Nicolaï bi nga xam ne mooy promoteur bi ne bu dee CNG yokk na saison bi ba août nag dina amal boobule komba Ama su ko neexee mu dem siife yeneen i combat wante nag na bàyyi ci xelam ne dafa ameel Luc ko lay kombaam ci digganteem ak roi des arènes lomb samp ab laaj ne ndax du saison bi nag jeex na ngir Modou loo lii moo gënoon a fës ci ëttu yéenekaay yi ñu xëyee xëyandool ñu yendoog jàmm Bonjour, de la crise scolaire des gels à géométrie variable. C'est le titre qui barre la une de Sud Quotidien. Le quotidien du groupe Sud Communication informe que la crise scolaire n'est pas encore totalement résolue. Au terme de la rencontre entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants du g vendredi dernier, seuls cinq syndicats ont décidé de lever leur mot d'ordre de grève après les propositions du gouvernement. Le CUSEMS e et le SAEMS e n'ont pas encore donné de réponse. attendre la décision de leur base pour leur dernier mot. Le confrère de l'avenue Bourguiba rappelle que le gouvernement a revu à la hausse sa proposition de 90 milliards de francs CFA dans le cadre de l'amélioration du niveau de rémunération des enseignants. Le Soleil renseigne que cette enveloppe passe de à 98,8 milliards de francs CFA et qu'une partie des mesures financières prennent effet à partir du er mai 2022. de Anne rappelle que les efforts notamment sont salués par les parents d'élèves et relèvent le satisfecit du Haut Conseil du dialogue social. Intéressons-nous à présent aux conséquences au Sénégal du conflit en Ukraine avec Dr Fatou Soussar, sociologue. La directrice du laboratoire genre de l'Institut fondamental d'Afrique noire prédit des lendemains difficiles pour le Sénégal. Elle sonne l'alerte, invitée du jour de l'émission Objection de la radio Sud FM hier dimanche 27 février Elle déclare, on rentre dans un cercle vicieux où les populations, les enseignants, les agents de santé d'une manière générale, les agents de l'administration vont entrer en ébullition. Les populations ne se retrouveront pas parce qu'on est dépendant. Tant que nous ne réglerons pas ce problème d'autonomie sur le plan alimentaire, on va être à la merci du système international, selon l'invité de l'émission Objection, docteur Fatou Soussar. Effets collatéraux de la guerre en Ukraine, la galère des esclaves alimentaires. Titre le mandat qui informe que si l'Europe tousse, l'Afrique s'enrhume. Le Sénégal sera parmi les pays les plus affectés si la crise ukrainienne perdure. Nous sommes deuxième consommateur africain de riz après. le Nigeria. PASTEF n'est pas la première force de l'opposition, selon Doudouade du Parti démocratique sénégalais qui persiste et signe dans les colonnes de tribune. Tel n'est pas le cas à crier Doudouade lors de l'émission Grand Jury de la RFM. Il ajoute que PASTEF n'est pas allé aux élections seul. Mais en coalition, restons avec Doudouade qui parle cette fois-ci de la reconstruction de la famille libérale. Il confie à l'indépendant que Maki est en train de poser des jalons. Le Parti démocratique sénégalais est preneur et les libéraux ne sont pas rancuniers, précise Doudouad, qui ajoute que le Parti démocratique sénégalais exige une réouverture du procès de Karim Wade et non une amnistie. Parlons toujours politique avec Aliou Sall, avec le lancement de son mouvement Renfort And Doolel Sunu Réew, avec Direct News, qui renseigne qu'Aliou Sall se prépare pour les législatives de 2022. Le président Macky Sall peut désormais compter sur ce mouvement qui vise à donner plus de visibilité aux actions de l'actuel locataire du palais. Restons avec ces législatives de juillet 2022 avec la question relative à la caution et au parrainage avec Rewmi Quotidien. C'est du rafistolage, dixit. Mamoudou Diop de Croix. Il a exprimé ses quatre vérités sur la fixation de la caution et le parrainage, qui sont selon lui deux filtres pour réduire le nombre de partis lors des législatives. Sa coalition ankylosée, le seul choix de Macky reste le reformatage de Benno Bokk Yakaar, d'après Critique. Au lieu de décréter la mort de Benno au lendemain de la présidentielle de 2019 pour une nouvelle entité, le président Sall s'est accroché à cette coquille vide qui lui vaut aujourd'hui ses déboires, selon Critique, qui revient également sur la nouvelle équipe gouvernementale. Il souligne que Macky torpille L'opposition, au moment où l'Église sonne la charge, selon Sud Quotidien, elle élève la voix et dénonce le saccage relatif au trafic de bois. Monseigneur Benjamin Ndiaye tire la sonnette d'alarme dans les colonnes du Soleil sur le fléau du trafic de bois rouge qui décime la forêt casamançaise. Il s'exprimait le 26 février dernier à l'occasion de l'ouverture de la 58e Assemblée générale de Caritas Sénégal. L'Église dénonce vertement. L'évidence s'intéresse au Magal de Kazu Rajab célébré ce lundi. Galas l'exceptionnel, le multidimensionnel. La communauté mouride se rappelle ce lundi de son deuxième khalife, Serigne Fallilou Mbacké Baye Mbène revient sur la vie d'un homme de Dieu doublé d'humaniste. Et selon le Soleil, Touba est dans la ferveur. Gressons à Touba avec Serigne Kosso Moustapha sur la visite de la douane dans la cité religieuse. Il déclare, le khalife n'a jamais prononcé le mot expulsion. Qui connaît le khalife général des Mourides sait que de tels propos ne peuvent pas émanait de lui. Parlons de trafic de migrants et d'escroquerie de haut vol sur l'axe Dakar-Lisbonne avec le CEO de Guy Guillaume Group écroué. D'après Libération, sont deux passeports de diverses nationalités et des cachets de la Chambre de commerce et d'industrie Portugal-Sénégal ont été retrouvés dans ses bureaux à Nord-Foire lors d'une perquisition. En sport, Stades Le Quotidien du Sport s'intéresse à Kouyaté qui fête ses 10 ans dans la tanière. ce 28 février. La Ligue 1 sénégalaise avec le leader Génération Foot qui neutralise Guédiawaye Football Club. L'AS Pikine, et éjecte Diaraf de la quatrième place. Toujours, selon SAD, le quotidien du sport, Mindy et Blues sont battus au bout du suspense. Sadio et le Reds remportent une finale Alors qu'en basketball, notamment les éliminatoires du mondial, les Lions, et termine premier de la poule D. Terminons par Sunu Lamb qui s'intéresse à la reprogrammation du combat royal Modou Lô Ama en juillet, août ou décembre et donne la parole au promoteur Luc Nicolaï qui déclare si le CNG proroge la saison en août J'organiserai. Le confrère signale qu'Ama Baldé est libre de signer d'autres combats, mais il reste de voir toujours un combat contre le roi des arènes au promoteur Sous l'ombre s'interroge. La saison est-elle terminée pour Modelo C'est tout. À vos journaux et très bonne lecture.